alhamdulillahi alladi jaalana min annasihin wa afhamna min ulumil ulamai rasikhin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bokki jullit yi bokki Sénégal ak bitim réew yépp yéen ñu nuy seetlu ci waxtu na ci sen television madiana TV seen mbokkum taalibe Serigne Cheikh iya mo delu ci wat ak yeen ci sen emission sadul Iman nek fi ci enfance technopole Dakar delu siwaat ak yéen nag fas yéen waxtaan ak yeen ci li nga xamne modi ngeneeli rajab xam nga ne wer wi di rajab dafa bari ay ngeneel lol te ngëneel li muy bari bari bari yépp jaam ñi rekk tax borom bi subhanahu wa taala tànnal nu ko waaye ba jaam ñi taxeet yàlla suñ borom da ko tànnal xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaamu nga xam ne kon loolu ak jagle la goo xam ne nun la ko borom bi subhanahu wa taala jagleel ndax xam nga ne waxtu ne damay faral di wax ne borom bi subhanahu wa dafa wax Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ne ko boo gisee ma mujj la indi yaag sa xeet wi dama bëgg seenu tëraay ci bàmmeel du yàgg comme yéen mujj a ñëw bu ko defee boo gisee sa xeet wi may gàttal seenu fan dama bëgg seenu layo bis penc du yàgg boo gisee sa xeet wi ma néewal seen wërsëg dama bëgg seenub lijjante bis penc mu yomb kon lool lepp nak mu doon lo xam borom bi subhanahu wa taala bëgg gum bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaamu moo tax manam mu defal nako kon waxtu woné rek euh, fi wayu jamono dañuy xol la nga xam ne mengo ak jamono jojja ci walu l'islam ndax nit ñi bëgg nañu lu baax lool dañ dul gis rek maanaam ku leen di waxal ca yenn yi te dafa am ay sew-sew yoo xam ne euh, waxtu wu ne dafay jaadu ndax àq la boo xam ne nun ñi nga xam ne xam nan ko àq la boo xam ne dañu leen koo ameel muy lan war leen koo xamal ba ngeen xam ko ndax koo xam ne xam nga nag danga war di xam leen ndax nit ñi mën a jariñu comme koo xam ne dangay gindiwaate nag waxtu wu ne sab làmp warut di giim warut di fay boo defee nag damay faral di wax ci jamono bii ne ki lay gindi mooy ki lay dimbali waaye ki lay góndi moom dafa lay nax ndax bàyyi faal yi sikkar doo dégg mukk ñu ne faal yaanu góndi waaye faal yaanu gindi rek ngay dégg kon nag ki lay gindi mooy ki la dimbali waaye ki lay góndi moom dafa lay nax am na lum lay nëbb kon nak tay nu fasiyene ñew ak ci yeen ci li nga xamne moy li alquran di wax ne sari'u ila maghfiratin min rabbikum na ngeen gaaw jublu ci sakku ak jegal seen borom bi subhanahu wa taala bi lolu amé nak ñu ne yéen waa madina ak yéen wa saam rawaatena yeen ñi nga xamne da ngeen jegalul yonent bi alayhi wa salam kon li nga xam ne moo di rajab dafay garab goo xam ne daal meññet mi bari na te doom yi neex na lool te boo ci mecc doo bëgg bàyyi loolu mooy ngeen li rajab kon nag ibnu abbas bi alxuraan ne saanu ila maxfirati min rabbikum moom dafa wax ne kon eh, ilaa jooje ilal islaam yi jëm leen ci lislaam ngeen farlu ci ak lépp loo xam ne maanaam santaan na ko wa ruwiya anhu ila tawbati keneen nettil ne ibnu abbas kat nee na saarion ila jooju nee dangeen da di gaaw jëm ci tuubal borom bi subhanahu wa taala waxaala ikramatun wa ali ñu nekkat ila ada il faraidi saarion ila mafiratin jooju li ci yàlla jublu ñu wax ne moo di gaaw leen jëm ci joxe faratay borom bi subhanahu wa taala abul aaliya moom it wax ne kat ilal hijrati da ngeen gàddaay woon àdduna ginnaaw jublu ci borom bi subhanahu wa taala ko defee kon saariyo ila maxfirati mi rabbikum wa jannatin arduha assamawatu wal ardu ne nag li nga xam ne mooy li yàlla bëgg a wax foofu ci gàttal ah, gaaw leen jublu ci wutee lu baax ca waxtu ba ngeen ko talee ak ba ngeen ko manee ndax kat àjjana yaatuwaayam buñ boole woon yaatuwaayu suuf ak yaatuwaayu asamaaw yépp àjjana moo leen gën a yaatu kon loolu jaam ñi rekk a tax borom bi subhaanahu wa sàkk aljana jooju bëgg ñu di ko jaamu te di ko ca ñaan ca àjjana yooyu ndax yàlla xejoon na lépp wa suila anas ibni malikin radiallahu anhuma an il jannati anas ibnu malik dañu ko laaj ne ko waaw anil jannati afi sama am fil ardi waaw àjjana moom ci kaw asamaaw la ne wala ci biir suuf fa ayu ardin wa samain tasihul janna mu ne àjjana yi day waay suuf yi ak asamaaw yi boo leen tegale woon tàllal ko ba mu yaatu ajjana <clears throat> moo gën a yaatoo noonu xiir fa ay na ñu ne ko waaw léegi nag ajjana moom moom ci ban la ko yàlla def <clears throat> fa xaala waati samawaati sab'i tahtil arsi mu ne dey ca kaw asamaa wi juróom-ñaar la yàlla làq ajjana ceroon aras foofu la ko def ñu ne kon ñu nekk ajjana toujours foo fekk këru ajjana ca kaw lay ne waaw jahanama nag fu mu nekk mu ne wa inna jahanama taxtal aradina sab'i mu ne sawara yi euh, nag moom mu nga ca juróom-ñaareeli suuf kon gis nga yàlla teral gum teral doomu aadama fa mu def ajjana ak fa mu def sawara dañoo sore lool ndax bu xasee ba yërëm doomu aadama bi ba dugal ko ci ajjanaam yooye nag maanaam luy nuroo sawara dootu ko jege fenn moo tax mu def sawara ca juróom-ñaareel bi suuf waaye jël ajana yóbbu ko ca juróom-ñaareeli asamaaw ca kaw li kaw ba noppi wañu ko waat làq ko ci ron aras taxtal arsi kon loolu teraanga la joo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko beral jaam ñi rawaate na xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam وعن ابن الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جاءني جبرائيل عليه السلام وقال يا محمد لا يصلي عليك احد الا صلت عليه ملائكته ومن صلت عليه ملائكته كان من اهل الجنه من عبد الرحمن بن عوف dafa wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko nettal man de jibril ñëw na ci man ne ma yow muhammad maa ngi lay xamal ne sa borom nee na nga bég ndax kat yow muhammad sa xeet wi li la ci yàlla defal defalu ko keneen ci aw xeetam ndax yow kat képp koo xam ne julli na ci yow ni allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim yàlla dina jox ndigal juróom-ñaar fukki junniy malaayika ñoom it ñu julli ci moom te la ñu julli yépp ci moom maanaam loola lu ndey dencal la ci sa magasin yiw boo liggéey boo faatoo fekk fa mu ne nag koo xam ne malaaka yi julli na ci yow dafa fekk booba liggéey nga ndey ba nga xam ne yow nitu ajjana nga mënatoo jëm fenn fudut ajjana kon nag loolu lu mat di sàkku la mu ne ba tey mu jële ci yonent bi alayhi salatu wasalam annahu xaal man ahya awala laylatin min rajabin lam yamut xalbuhu ida maatat alxulub wa saba allahu alxayra min fawqi raxsi sabban mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na keroog bañ nee weeru rajab feeñ na nga tàmbulee ca moo xam guddi gu mu doon ci guddi yi nga maanaam nit ñi reer nga reer dugg sam néeg yeesal sam jàpp di naafila kem sa lay kartan la nga man booleeg teewal sa xol lépp nee na waxtu woo xamante ne bii yow def nga loolu borom bi subhanahu wa taala ina la dimbali ba yow sa xol maanaam du faatu te it xol yépp bu fekkee maanaam faatu nañ xol bu faatu dëgg-dëgg maanaam mooy daal xol boo xam ne dafay rekki ku gëm xol bu amatul liimaan boobu xol dafa dee xol boo xamante ne fàtte na yàlla boobu xol dafa dee loolu lay wax ne bu fekkee doomu aadama yépp seeni xol deewoon na yow a sab xol yàlla dina def muy dund waxtu wu ne ndax kat sama borom yàlla dina la solal benn manto boo xam ne kenn du xam melokaan wa na mu mel ci ab taar waaye lépp mu doon loo xam ne ku la gis am ci yow yaakaar xam ne ku baax ngi ku yiwe ngi nituk àjjanaa ngi nee na loolu la yàlla suñ borom di defal subhanahu wa taala yow mi seet benn guddi ci weeru rajab nga naafile ko waaye nag nee na loola du ca yem borom bi subhaanahu wa taala nee na wa xaraja min zunubihi kay yawma waladat ummuhu yàlla dina la setal wécc ci ay bàkkaar ba nga mel ne bis bi la sa ndey juree maanaam nga xam ne dafa góor lenn lu ñu ne bindale bàkkaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki màggal benn guddi ci weeru rajab naa fi la ko teewal xolam ngir jëm yàlla rek tax yàlla jéggal na ko ay bàkkaaram yépp bam set wécc te kawe moo xam ne man nit jaamu na yàlla ba xëy génn aduna teewul yàlla nangu jaamum nga te amul martaba mi ndax ki du ca yam yowmal khiyamat lakbar defa wax ne wa yasfa'u li sab'ina alfan min ahli alkhataya qad istujibu naara mune yamu ca jaam bobu yowmal khiyamat alakbar yàlla dina ko defal lam defalan sayyidina usman juróom-ñaar fukki junni nit yo xamne sawara yeyon ne len dina am maqaamam mën a wax yàlla ñi dem leen a bëgg ràmm yàlla ne ko ràmmal juróom-ñaar fukki junniy nit ci sa daraja tabarakallahu loolu lépp rajab moo ko maye bismillah ifnil addaara yàllaahu safi baqa bihi lii fika yàllaahu bismillah ifnil addaara yàllaahu سفين بقاء أبيه